الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi suñu xutba tey mawdu bi mooy aafaatu shirk mooy musiba yi bokkaale di dugal ab jullit di dugal nit li tax nu war ko fàttalante nag mooy daanaka réew mi wala nit ñi dañoo lànk rek ne duñu bàyyi bokkaale illa man rahima rabbuk bokkaale ci biir ci biti ndey joor ak càmmoñ foo dugg nit ñaa ngi bokkaale réew mi dafa bëri bokkaale ba ku fi ñëw 24 heures bi rek balaa jant bi di soo di nga xam ne réew mi réewum bokkaale la duma fàtte mukk benn bis benn naar bu nu amoon mu gane sunu ñëw di war a aji màkka ñu ànd ak moom suba ba ngoon di ko lijjantil ay këyitam ngoon jot ñu génneel ko benn ban fekk julli nañ gee ba pare fii ñu génneel ko benn ban ci karo yi ne ko toogal fii nga féexlu parce que ci biir dafa tàng bi mu toogee ba ñépp toog première question bi ma ko laaj maza raayta fi lbilaad kayfa xaalul bilaad mu ne ma baladu shirki wa tabarruj noo gisa dëkk bi noo gisa réew mi mu ne ma réewum bokkaale ak tambaambalu réew moo xam ne nit ñi dañuy bokkaale jigéen ñey tambaambalu te xam ngeen bokkaale mbokk yi su ko nit di def ci juróom-ñaari mbir la la jëme bu ci njëkk mooy zulmun azim ñaareel bi mooy iftira ala allah ñetteel bi mooy dalalum baid ñeenteel mooy muxbitun lil amal juróomeel muuqiu ru'b fi lqulub juróom benneel maaniul magfiratu zunub juróom ñaareel muharramul janna wa mujibu nnaar mbokk yi juróom ñaari mbir yi ab julit war na koo xam bu baax a baax li yelloon sax mooy nga foto ko teg ko sa bopp lal soo yeewoo say bët na ci jàkk pour nga bàyyi ko xel bañ ko def sooy tëdd sa bët mujj ci bu njëkk mooy zulmun azim bokkaale tooñ gënu koo rëy yàlla nu nettali ci suratu luqmaan mu ne wa id qaala luqmaanu libni wa huwa yaiizu yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim aya 13 suratu luqman borom bi subhaanahu wa taala dinu nettali histoire waaju baax jooju ndax mbaaxam sax dem na ba ñenn ñi naan ab yonent la woon ndax mbaax waa jooju tudd luqmaan bi ko yàlla mayee doom mu xam ne yanu na responsabilité boppam ak doomam ji moom kese bëggul dugg àjjana doomam duggi safara bal ni mu bëggee dugg aljanna noonu la bëggee doomam dugg aljanna moo tax ndeysaan boromi xam-xam yi nee nañ moom Luqmaan dafa ut saaku dugub mu woo doom ji doom ji toog mu jël saaku dugub bi sotti ko seen diggante ñoom ñaar lan la Luqmaan namm ci loolu mooy par benn pepp la ko nar a waar ba saaku bi jeex par benn pepp mi mu njëkkatee li mu ko njëkk a wax yaa bunayya إن الشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم mu daal di teg benn pepp bi ndey joor ay doom maa ngi lay wax di la dénk fépp foo mën a ne lépp loo mën a def ngalawaay bul bokkaale sa borom bul dendale yàlla ak kenn wala yàlla ak lenn mukk ndax bokkaale tooñ gënu koo rëy inna shirka la zulmun azim dëgg la mbokk jullit yi pour ngeen xam ne bokkaale dafa garaaw yow mi am soxna nga wa nga jóge juma julli ba pare gàddu sa sijaada nga ñëw ba ci sa biir néeg nga fekk am ponkal mu tëdd jaaxaan ñu koy peñal si kimam nga wax sa soxna kii kan la mu ne la kii moo aya tey ndax añ añu àjjuma boobu tey di nga ko añ lan ngay sentir yow foofu nga taxaw waajaa ngi tëdd tegale ay tànkam allahu akbar lan nga yëg sa yaram yow waa léegi nag yow buggoo ku la def loolu nga bugg ko def yàlla buggoo yow ku la bokkaale buggoo ku la dendale ak kenn buggoo sax ñu wax sa tur wax turu keneen ba pare nga bëgg koo def sa boroom subhanahu wa taala xoolal yàlla fi mu la tàmbaleeg yow fal yanzuru insaanu mimma xuliq nit na xool ci li ko yàlla bind xuliqa min maa'in daafiq yaxruju min bayni sulbi wattaraa'ib fa innahu ala rajihi la qaadir yàlla tibb ndox ndox mu salte ndox moo xam ne min maa'in mahiin loolu la yàlla wax hal ata ala al insan hiinun min addahr lam yakun shay'an mazkur inna xalaqna al insana min nutfatin amsaajin nabtalih fa jaalnaahu samian basir yàlla nee na maa la bind ci ndox ndox moomu laa jël ndox mi salte na salte boo xam ne ku mu taq sa yére boo xëyee da nga koy fóot su taqee sa yaram boo xëyee suba da ngay sangu balaa ngay génn kenn du la nangul sa dugg ci lislaam lu dul nga sangu ndax ndox moomu yàlla nee na moom laa jël bind la bi ma koy bind ndoxu góor ak jigéen la ma dajale ko fa jaalnaahu fi qararin makin ma def ko ci benn place bu am sécurité ila qadrin maalum ma denc ko fa ba dat bu ñu xam fa qaddarna fa ni'ma alqadiruun ma dogal ay waay la ma dogal a neex mooy lan mooy dama laa def nit waaw naka la sunu boroom di jaaree fii ak yow jële la ci ndox denc la ci biir judd jot mu génne la bi judd jotee su doon du yàlla nit du jaar foofu génn waaye yàlla moo ko fa jaaral génn ko mu ne summa sabila yassarahu man yàlla maa yombal yoon bi nit jaar fa nga juddu dara dalu la yàlla nee na ma lay aar di la sàmm bi nga juddoo rek li njëkk a def mooy sexal la ween bi nga sexee ween bi namp lan moo ñëw soow pourtant ci biir deret moo fa nekk boo jëloon paaka nga dagg ween bi lan mooy génn deret yàlla mu ne min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saairan lissaaribin diggante soow ak deret ma freiné soow bi deret bi di génn allahu akbar bi liir bi muucoo ween wi kan moo ne soow mi demal deret bi taxawal pourtant ñaar ñoo fa nekk soow moo fa nekk ak deret ku téye deret di génn soow mi liir bi bi mu muucoo ba mu ñëw ci gémmiñ gi kan moo ko ne meew la nàmpa wannal allama al insana ma lam yaalam waaw yàlla def lii lépp nga juddu ñëw yàlla may la xel may la wér may la kàttan may la xam-xam may la lépp amoo looy def ngay dendale keneen ak yàlla moo tax bokkaale ñàkk jom la koo gis muy bokkaale yàlla dafa ñàkk jom xamul boroomam xamul lan moo ko indi ci kaw suuf kooku xamul kattanu yàlla xamul qudratullah jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo tax mu ne yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim doom maa ngi lay ñaan bul bokkaale yàlla mokk xoolal tey bokkaale ni mu sawee partout foo dugg ñii dañuy waat ci kudul yàlla ñii di raay ay bàmmeel ñii di sulli ay néew ñii di takk ay lam ñii di takk ay béjjén am na doomu aadama yoo xam ne soo laalee seen mbagg yi dafa fees dell ki téere nga laal seen ndigg yi daa fees dell ki téere nga laal seen pooj yi dafa fees dell ki téere dañoo takka takka takk ba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun benn waay accident la fii soo génnee nii rek ma dem nuyu ji ko xam nga lu ma wax oustaz ma ne ah mu ne ma da ngeen di wax rek billahi gàllaaj dëgg la wallahi suma gàllaajuwul woon damay dee ma ne ko ha mu ne waaw mu ne ma wallahi suma gàllaajuwul woon damay dee xanaa xamu leen gàllaaju dee ñàkka gàllaaju dee ku gàllaaju day dee ku gàllaajuwul day dee ku takk tamit bis dina ñëw dinañ ko tekki ma ne ko wallahi gàllaaj yi musalu la sa dee moo jotut gàllaaj yi musaluñ la de wallahi deem moo jotut wallahi bu deem jotoon wallahi du takk keroog gàllaaj yi buy xëy isa nazala al bala amal basar dee amul amul kiiraay amul garab kullu nafsin zaiqatul maut yàlla nee na fa lawla ida balagat alxulquma wa antum hiina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun keroog nee na yàlla nee na bi dee ñëwee ci nit ay mbokkam wër ko ñëpp a ngi nii papa ngi nii yaay doom mbokk docteur yaa ngi nii ñëpp a ngi nii taxaw yàlla nee na wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun maa leen ko gën a jege waaye gisu leen ma ndax sama garde corps yaa ngi nii yàlla nee na bi ma xëccee ruugi ba ci boli gi fii muy xur-xuri acca yàlla mu ne ñëw leen lu tax ngeen ñëw ngeen jàpp ci ngeen ne waa ji du dee waaye waa ji tëdd fii tey wa zanna annahu lfiraq leer na ko ne tey day dee mbokk yi bokkaale baaxul ab jullit na bàyyi bokkaale bal yonent alayhi salaatu wassalaam da daan ñaan yàlla guddi ak bëccëg yàlla na ko yàlla musal ci bokkaale ñaareel musiba bu bokkaale du yóbbu nit mooy iftira bokkaale kat dafa fenal yàlla yàlla mu ne wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima suratu nisa aya 40 48 sunu borom nee na képp ku bokkaale yàlla wa man yushrik billah ku bokkaale yàlla faqad iftara isman azima duural na yàlla fenal na yàlla fen goo xam ne dara gënu koo rëy lu tax ndax daan na yaa dafa ne yàlla mënul nen yi ñoo mën yàlla mënul garab gi moo mën yàlla mënul weñ gi moo mën yàlla mënul ndomba bi moo mën yàlla mënul jaaro bii moo mën yàlla mënul soow mii moo mën yàlla mënul deret jii moo mën loolu moo tax da ngaa fenal yàlla ku bokkaale rek fenal nga yàlla ndax da nga ne yàlla mënul ki takk béjjën dafa ne yàlla mënu ko aar béjjën bi moo ko mën a aar ki takk weñ gu ñuul gi da ne yàlla mënaluma dara weñ gii moo ma mënal moo tax sunu boroom subhanahu wa taala wax ci suratu nisa mu ne wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima képp ku bokkaale yàlla moom day fenal na yàlla fen ngoo xam ne dara gënu koo rëy ndax dana yàlla mënul dara ki nga fekk muy wër garab am na lu tax ki nga fekk muy sulli néew yi am na lu tax ki takk téere yi am na lu tax ki takk weñ gi am na lu tax kii tuur nen yi am na lu tax loolu nag yàllaa ko mën kenn mënu ko waaye réew mi nag pour nga wax fii takki gàllaaj ak ay xarfa fuufaak da ngay dégg sax gaa yi ne la ku takkul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf wala ku bërewul ñu bëre daanu sa kaw loola tax man foog ma def nangam ak nangam ayna allah an ana wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy na ibrahima alayhi salaam keroog ba ñu boyalee safara si ba mu boy yàlla ne ibrahim yàlla ne jibril testeel ibrahim xool ko xoolal ibrahima nee naa la sama waay la te man rek la gëm gëmul kenn xool ko jibril ne cëpp ne ko ibrahim loo bëgg ma defal la mu ne ko bu dee yow moom am nga loo mën soxlawuma ko sama borom du ma seetaan Moussa keroog ba ko Firawna toppee ci géej gi ba mu sës su tourné Firawna koy jàpp bu duggee dugg ci géej gi lab gaa yi mu àndaloon naan innama inna la mudrakuun danañ ñu dab Moussa lu mu wax yàlla lu mu wax nit ñi mu àndaloon kalla inna ma'i rabbi jullit day wax loolu loolu la sahaaba yi waxoon loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam keroog ca xeer wa moog Abu Bakr yàlla ne allah tansuru faqad nasarahu llah is axrajahu allazina kafaru thani snayni is huma fi lgaar is yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha maana inna allaha ma'i loolu jullit dafa war a wax jullit dafa war a xam ne fu mu toll moo ngi ànd ak yàlla kon boo ànd ak yàlla looy soxla ay reen looy soxla ay pettaawa ki gàllaaj looy xëy di tuuri nen wala dëkk bi saa yoo rombe ci Carrefour fajar di nga fekk ay nen ak a neexoon nen yooyu ñu jox ko ñu amul lu ñu ndekkee mbokk yi bokkaale yàlla ñetteel bi muy dugal nit dalalan baid réer bu sori la ku bokkaale da ngaa réer ba sànku te kenn mënatul fexe nga gindeeku wallahi alazim bokkaale ku koy def yàllaa ko wax yàlla nee na da ngaa réer ba sànku wa man yushrik billah faqad dalla dalalan baida suñ borom moo wax loolu képp ku ma bokkaale yàlla nee na da ngaa réer ba sànku kenn mënatulaa gindi moo da nga fekk waa ji ndeysaan fajar mu def yaramu neen di wër guy guy ci digg àll bi moom kenn allahu akbar xam nga ne koy réere ko waral loolu ngay suwaa ji jënd palaatu nen palaatu nen xoola nen ñëw ba ci digg tali bi naan ko tëf di toj tëf di toj tëf tëf ba yépp toj mu ñibbi koy réer weesuwul loolu loolu ma da nga fekk waa ji ren di am xar di sangoo deret ji loolu moo tax nga gis waa ji dem di sulli ay néew di jël ci ñoom ay yax ak ay bëñ ak wala nangam ak nangam ak nangam nangam moo tax yàlla ne képp ku bokkaale réer na réer goo xam ne kenn mënatulaa wàññi indi la ci dëgg mbokk yi ñeenteel bi bokkaale di dugal nit mooy muxbitun lil amal bokkaale day yàq jëf yàlla mu ne walaqad uhiya ilay walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin kan la yàlla di waxal muhammad yàlla mu ne yow yonent bi waxal nit ñi ne wala qad uuhiya ilayka waxal nit ñi ne man yàlla wax naa la yow muhammad wax naa yonent yi la fi jiitu woon kenn ci yéen bu bokkaalee ay jëfam yépp yàqu na waaw bu yàlla waxee muhammad soo bokkaalee say jëf yàqu na te di nga bokk ëllëg yowmal xiyaam ci ñi perte su yàlla waxee loolu muhammad kon ñun fu lu ñu war a wax wa laqad uhiya ilayk wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk yéen ñi jàng arab laam boobu ci la yaxbatanna laam bi laamul qasam la nuun bi nuunu tawkiid yàlla daa giñ ci màggaayam ne yow muhammad alayhi salaatu wassalaam giñ naa ci sama màggaay boo ma bokkaalee da nga perte te jëf jëpp joo jëfoon yàqu na boroom xam-xam yi dañuy wax dañuy melal bokkaale nu mel ñu ne muy mel ne kuy lekk gerte da ngaa romb meer bi di jaay gerte bu la neexee na nekk caaf bu la neexee na nekk xott nga jënd ci lu bari nga ñëw ñu boxoñal la ko ba mu set nga toog di lekk waaye xam nga lu ñu boxoñ laajatul jër par benn da ngay dànk lu bari ba loxo bi fees nga sànni ci gémmiñ gi nga yëy yëy ba gémmiñ gi fees waaye yàlla def deuxième dànk bi ba ngay dugal da nga cee yóbbaale benn bu nëb benn bu nëb nga yóbbaale ci biir gémmiñ gi ndax bu nëb boobu gémmiñ gi ni mu feesee saa yu nëbu la nga fa benn bu nëba fa nekk ndax da ngay wan loolu nga yëy ku ma doon tontu fi nga toog ndax da ngay wan li nga yëy yëpp tontu bi mooy déedéet dama koy yàbbi noonu la bokkaale di yàqee jëf da ngay yendu di jaamu yàlla ba ngoon nga war a tëdd daa di wax loo warta wax sa jëf yi nga yendoo woon yëf yëpp yàqu na allahu akbar xoolal julli yi xoolal jaamu yàlla yi xoolal jàng alxuraan bi nga yendoo xoolal zikr xoolal sarax waaye bi nga ñëwee bay tëdd ci kaw lal bi rek dafa am loo wax rek yëpp yàqu wala dafa am loo def rek yëpp yàqu nga perte saa yoo bokkaale say jëf yëpp yàqu na looloo tax mbokk yi ñu war a moytu bokkaale ñu ñaan buur jalla jalaaluhu mu moy ñeenta ngoog yu jara xam bu njëkk bi mooy bokkaale bakkaar bu rëy la ñaareel bi mooy fenal yàlla la ñetteel mooy bokkaale dalay jural nga sori dëgg sori gu kenn xamul ñeenteel mooy day yàq jëf noo ngi ñaan yàlla mu def ci ñun dégg ak topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله juróomeel bi ci yooyu ci yi nga xam ne bokkaale daf koy jural nit mooy muuqi u ru'b fil qulub bokkaale kat fu mu nekk di tiit yàlla ñu ko nettali mu ne sa nulqi fi qulubi alladina kafaru ar-ru'ba lu tax bima ashraku bima ashraku min billahi ma lam yunazil bihi sultaana sunu borom subhanahu wa taala nee na bokkaalekat yi fu ñu nekk damay sànni ci seeni xol tiitaange moo tax bokkaalekat day tiit foo ko fekk mu ngi tiit looloo tax tiitaange googu mooy tax luñ ko wax mu def ko mu def ko su demee ci waa ji waa ji ne ko benn jigéen wallahi moo ma woo téléphone mu ne ma sama borom kër démb ci guddi dañoo toog ba deux heures du matin rek ma dégg cororororororo ndox ma ni bopp kan mooy sotti ci kër gi ndox mu ne man xool ni yow gisuma sama borom kër ma xam ne kon moom la mu ne ma dox ndànk dox ndànk ba ma gis ko ci digg kër gi mu yor ñetti paanu ndox di tibb di sotteeku mu ne ma koy xool ba ci agré ma ni kii gaa la rek mu tëb daw ñëw ni i dangaa bëgg a yàqale yi ndaw ndaw si ne ko xam daal dem tëddi xoolal dangaa bëgg a yee kër gi ponkalum lëmm borom kër nga def yaramu neen sa digg kër te nga am ay toilette lu tax doo dem sangu ji foofu tiim ay paanu ndox ñu naan la tibal fii benn utal juróom-ñaari ndox ndox mu nekk moo tax gis nga bokkaale lu yóbbu nga tiit lu ñu la wax nga def ko loo tax bokkaale kat su gisee mbóot sax danaan mbóot mii dañ koo yónni billaahi am na nit ñoo xam ne bu gunóor naawee ñu ne gunóor gi dañ koo yónni bu leen laal rek ku mu laal nga yàqu parce que bokkaalekat la yàllaa ko wax yàlla nee na bokkaalekat damay sànni ci xol bi tiitaange ndax lim ma bokkaale moo tax lu yëngu mu tiit loolu moo am tey kenn ci ñun bu xëyoon suba ba fekk ñeenti nen buntu këram ñeenti nen la ilaha illa du xëy bis boobu tey mënumaa liggéey si maa ngi nii di dem Tamba maa ngi di dem Casamance ndax damaa fekk ñeenti nen lii foog ma xool yi lan la ñeenti nen yooyu boo ko defoon ci benn palaat nga taal ci diwlin ñeenti nen yooyu bu diwlin bi tàngee jër ba nga toj leen ci bu fekkee mën nañ dara nañ wax ak diwlin bi su fekkee mën nañ dara ñoom nen yooyu nañ wax ak diwlin bi yaakaar naa bu leen diwlin bi bàccee ba jàppee ba nga wëlbati ko ñeenti yoon dina xam ne mënuñu dara allahu akbar xam nga yàlla lu mu wax bokkaalekat nu mu mel bokkaalekat yàlla nee na këram mu ngi mel ne këru jargoñ allahu akbar xam ngeen jargoñ jargoñ xoolal su lëndee ba nga romb koog bale rek nu muy def dafay yàqu yàlla nee na bokkaalekat noonu la këram mel dafa bokkaalekat dafa yaafuus yaafuus ba ni néegu jargoñ yaafuusee noonu la bokkaalekat yaafuusee mbokk yi wallahi su yàlla doyul nit dara dootu la doy ci àdduna yàlla subhanahu wa taala màggaayam kattanam pouvoiram dooleem loolu yëpp nga romb ko fi yàlla doyu la wallahi loo jóg loo dem rek moo tax da ngay yaafuus luñ la wax nga def ko waaw luñ la xoolal xoolal sëriñ tariyaax yi ni ñu amee alal ñoom ñëpp léegi koo ci romb ay 4x4 lañ yor ay étage R plus R plus parce que nit ñaa leen koy jox comme dañ nit ñi dañoo alku xamuñu dara duñu làqatu ci yàlla yàlla doyu leen ñee ñoo leen doy ku ñëw ñu lekk mbokk yi bokkaale ngoog day tax xol bi tiitaange di ci nekk beneen bu ci tegu mooy maaniul magfirat zunub bokkaalekat yàlla du ko baal yàlla nee na inna allaha laa yagfiru an yushraka bi wa yagfiru ma duna zalika liman yasha yàlla nee na bokkaalekat du ma ko baal mu mun naa baale lu nekk ba mu des bokkaale waaw buur bi nga xam ne bi mu lay bind kenn fekkewu ko su lay wërsëgal kenn munu ko téye su la reyee kenn munu ci dara nga dund ci kaw suuf ba faatu xamoo yàlla moomu yàlla moomu bind la fu kenn fekkewul wërsëgal la ndey ak baay indi la ci kaw suuf di la sàmm di la wërsëgal loo nekk mu la koy defal indi la ngelaw li ngay noyyi kanti ñun moo fay facture bu muy noyyi yàlla may la ngay gis ku fay facture ngay dégg ngay wax ngay dox lu nekk yàlla defal la amoo looy faye yàlla lu dul di jox keneen loo tax tribunal bi gën a rëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal xiyaam yonent bi nee na ana wal ins wal jinn fi nabain azim allahu akbar ana yàllaay wax de ana man yàlla wal ins ak nit wal jinn ak ginne yi fii nabain azim ñu ngi ci tribunal bu rëy yonent bi dafa tiit ne yàlla lu waral tribunal bi yàlla ne axluqu wa yaabudu gayri wa arzuqu wa yaskuru siwaaya man yàlla maa bind ñu jaamu keneen ma wërsëgal ñu sant keneen loolu moo am fii da ngay gis ku lekk wërsëgu yàlla ba pare sant keneen waaw jërëjëf diw moo neenal ceeb yi moo def nii moo def naa ceeb bu doon du diw ana diw moomu ñu ngi ci bàmmee li ñu denc kon kay mënul dara kon kay mënul dara kii amal muy sotti mooy yàlla kii neexal mooy yàlla kii naqaril mooy yàlla allah yàlla mooy def lépp kenn du def dara lépp sunu borom subhanahu wa taala moo koy def mbokk yi bi ci tegu mooy muhrimul janna bokkaale day tax ki koy def du dugg aljanna innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma li zalimina min ansar yàlla nee na li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale soo dee safara laa la jëmale lu yóbbu nit safara nag nit war na ko xam su ko xamee war na ko moytu ndikku looloo tax yenn yu sew sewaan yi ñuy da yi ñuy yi ñuy taafantaloo fii di waat ci kudul yàlla ak yooyu nañ ko bàyyi di wàkkirlu ci kudul yàlla di wóolu kudul yàlla suñuy ñaan sax di woo keneen kudul yàlla bokkaale gënu koo rëy moo tax même fii nit ñi dañoo tàmm bokkaale ba soo yoroon dara mu daanu sax doo woo yàlla keneen ngay woo sooy dox nga fakkastalu sax doo woo yàlla keneen ngay woo allahu akbar ana yàlla ngay dox ci tali ngay dox ci mbedd nga fakkastalu dàll bi dagg tànk bi dagg ba pare nga woo keneen ku dul yàlla nga am ñetti métit dàll bi dagg na tànk bi dagg na ba pare am nga bàkkaar parce que da ngaa woo keneen ku dul yàlla jullit nay woo yàlla yàlla nee na wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai isa daan allah bu la gaañi laajee man yàlla fan laa nekk ne leen damaa jege damaa jege ba kuma woo ma wuyu la musidɓe fulɓe tagal yettude allah e julde en elaaɗo men mouhammadum sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hannde wonno aafatu sirk bone sirkude woni renndinde allah e goɗɗum kala renndinoowo allah e goɗɗum yo tin o waɗi geɗe jeeɗiɗi o tooñi joomi ko allahu subhanahu wa taala ɗiɗaɓal iftira ala llah o fenni allah subhanahu wa taala ko rewi heen dalalum baid kala waɗowo shirk o majji majjere ngal annduɗa hay goto wonta ruttudemo caggal e nde ɗon majjere hay goto wawa yantildemo hen ko rewi hen muhbitun lil amal shirque bonnat golle a ñallat gollude ha kikiɗe waɗa sirque goto bonna foof ko waɗennoɗa ko rewi hen woni muqi un robe fil qulub shirque nannat kulal e ɓerɗe kala mo yiiɗa omo waɗa shirque nder ɓernde makko a tawata toon allah omo huuli jamma e ñalawma hay so tawi o fini subaka o tawi damal bitig makko ndiyam no rufi hen o wiya a doy fof mi ummo hen fof mi yaha guine mi arta fof mi yaha laɓe mi arta ɗo won ko waɗa ɗo mi tawi ɗo no asa allahu akbar wallahi sa tawi ɗon gaska a jangi hen qula auzu birabi falak a jangi hen qula auzu birabi nas a jangi ayatal coursi ko wonno toon ko mayat walla yalta doga walla bona on yejjiti nelaɗo mouhammad sallllahu alih w sallam nde ɓe waji ɓe liggimo ɓe waɗi ɗum e nder ɓundu ɓe kaɓɓimo kaɓɓe jeeɗiɗi kanko nelaɗo kono imam ali seydina ali o neli seydina ali naati e nder ɓundu ndu yaltini liggey o holko janggata hen qul ausu bi rabil falak o tuuta waɗa tuf taƴa min sharri ma halak o tuuta waɗa tuf taƴa ha liggey o foof gasi wala usbira falak wala usbira binnasi ko wawa haydara wawa goɗɗum ihwata al iman ko rewi hen woni mani ul maghfir- mani u zun- maghfiratu zunub sirkowo allah bakkatuji makko hay goto yafata ko mo allah wawa yafademo saabu ko waɗi ko ko mawni allah tagma allah arsiginma allah wurnuma ngara e aduna aɗa wadda allah e goɗɗo ko ganduɗa haydara o waɗananima jalla jalaluhu subhanahu wa taala ko rewi hen woni mohrimul janna wa mujibun linnar sirk haɗat neɗɗo nadde aljanna kono nawat neɗɗo jeygol allah subhanahu wa taala wi alquran innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawahu nnar wa ma lizalimina min ansar mbokk julit yi balaa ñuy jeexal sunu xutba am nañ ñaari xabaar yu ñu leen bëgg a wax bu njëkk bi mooy am nañ suñu benn mbokk bu jigéen bu toog fii suñu wet dafa war a dugg léegi léegi ci lislaam buñ jullee ba pare dafa war a dugg ci lislaam beneen bi mooy am na suñu beneen mbokk jullit bu toog fii ci sàppe bi Congo Brazzaville la la jógee depuis Congo Kinshasa depuis ñaari weer mu ngi Sénégal di un dimbal ci jàkka yi pour ñu dimbali leen seen jàkka parce que foofu seen état daf leen di xeex pour lu ñu am ay jàkk depuis boobu nag mu ngi wër ci ay jullit yi di dem di ñëwaat ba yàlla indi ko tey sunu jàkk vendredi bi pale passé mu ngi julle woon roi Baudouin tey la ko yàlla indi fii kon incha allah bu ñu paree ñaari mbokk jullit ñaar ñooñu ku jigéen kii di dugg ci lislaam ak mbokk bi toog fii lu ci waaye mën incha allah bismillah ci loo leen dimbalee ci lu ñu leen dimbalee incha allah bismillahi jalla jalaaluhu ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu aussi bu ñu jullee ba pare ñun ñëpp ñu toog fekke ko bu ñu paree incha allah am na benn émission bu ñuy def RDV ñu ko defoon vendredi ba le passé courant coupé comme émission bi dafa amoon importance ñu daal koy tegaat tey incha allah Euh, tomb tomb boobu mooy ñan ñooy responsable ci sunu jikko yu yàqu yi man huwa al masul an fasadil akhlaq loolu mooy tomb waxtaan boobu trois heures lañ koy teg RDV kan mooy responsable ci Sénégal jikko yu yàqu yi ku bëgg a xam ñan ñooy responsable incha allah buñ bàyyi ko juma buñ delloo ci kër yi ñu dem seetaan émission boobu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله من نجل فوفا سبون suñu jullee ba pare nga indi 16 bi mu toog الله أكبر الله